waa man jàpp naa ni ñu nag ñoom ñoo bokk li ñu wax mooy retourner ci classe yi kenn waxul ni du am ndax ñoo njëkk a wax ci njëlbeen bi ni d'accord uñ année blanche mais d'accord tamit année invalide mooy année bu ñu neenal loolu kenn d'accord ci donc d'accord nañ pour ñu jàng mais kañ lañuy jàng. au moment où que gis nañ ni feebar bi mu ngi gën a law fii ci suñu diwaan te defe naa ni ñu ngi déglu information yi di ko dégg ci yeneen diwaan yi ñu gis nombre de morts yi di augmenté wu donc ñu jàpp ni loolu rek daloon na ñu tey ci reprise yi mais comme

dañu ni élèves classe examen yi ñoom ñooy ubbi muy semde 3 troisième terminal pour reprendre ces cours condition yoy ñuy reprendre danaka dañ ko waron nak ko nañ ko wax ba mu leer ñu mën a annoncer kañ lañuy reprendre waaw lolu xam nga mesure gouvernementale la wax ni xëy na peut-être euh, toogaay bi xëy na peut-être yàgg na moom lañ gis moo tax ñu ne na xale yi ñi nga xam ne dañuy def examen jàngi le 2 muy élève cm yi élève troisième bi ak élève terminal yi waaye defe naa ni loolu man ni mu ko jàngatee mooy xaw na doy waar tuuti parce que daanaka bi ñuy fermer école yi cas yi bariwul woon noonu Sénégal daanaka yenn gox yi rek la amoon tey jii ñu ngi ci presque 2000 cas. nga bëgg a ubbi école vraiment loolu defe naa dina xaw doy waar euh, d'autant plus que mesures barrières yi wax peut-être au niveau du moyen ak du secondaire dina xaw a peut-être euh, yomb tuuti mais élèves CM2 nga xam ne 11 ans 12 ans 13 ans lay am nga bëgg masque pendant 5 heures 6 heures de temps Ils ko peut-être foo yeeg seen camarades yee yooyu di ko ak élève ni mu xale ni mu mel defe naa ni dina xaw a doy waar trop pour matale lépp bu nga xam ne nii vraiment dina mat pour que jàngale mi mën a jaar yoon. comme niñ ko déggee état bi programme na ubbi école yi le 2 euh, juin euh, mu nekk loo xam ne ñun euh, suñ préoccupation bi ci am nekkul ubbite bi parce que nag ñun suñu métier mooy dem jàngale ji dañu lépp lu ñuy def lu jàngale rek. daanaka defuñ lu ñu neex ba tax na ubbi bi moom doon nañ ko séntu mais nag li ñu jaaxal trop mooy modalité ak contexte bi ñu koy ubbee ci dëgg-dëgg fi ñu toll nii information yi ñuy jot par rapport ak progression pandémie bii nii ñu ubbi ci école mu yées lool jamono yañ ko tëje woon ñun jaaxal nañu lool ndaxte nag mesure barrière yi ñuy wax

à forte raison donc loo xam ni dafa concerner chaque école chaque élève ak chaque enseignant loolu bu ko bu ko matalee donc xayrun ñu sant ci yàlla bu baax waaye am nañ ci jaaxle pour mu matale ko loolu daal lu ñu jaaxal la fi ñu toll ñu toll nii ndaxte beneen affaire bi nga xam ne mooy ci lalu mooy équité manque d'équité bi nga xam ne am na ci ndaxte nag ubbi école. pour uniquement donc les classes d'examen lolu ñun kat lolu ñun ëlëm nañu ndax ñun pratiquement élèves yépp ñoo yam examen fin de cycle kon ay wagon la benn bu si manqué rek day impacté ci nu nu euh, train bi war a normalement ba tax na kon ubbi pour classe d'examen yi bàyyi yeneen classes yi day mel ni ñoom am na leneen lu leen vi lu leen soxal rek lu dul rek jàngu jàngu jàngu jàngu xale yi ni mu war a doxee dëgg dëgg dëgg ñun loolu aussi lu ñu jaaxal lu ñu jaaxal la. loolu loolu mooy yoon loolu mooy yoon parce que defe naa ne bu ñu naree dellu ci école yi il faut que ci wàllu santé que conditions yi les conditions soient optimales mais maanaam conditions yëpp dajee pour que xale yi mën a dellu parce que ay doomu jàmbur lañ mënoo jël ay xale yu ndaw exposé leen eh, ba pare ak virus bi ni mu kiiyee. nga bëgg né do jël ay conditions yi ko war loolu moom lu lu war la euh, bon est-ce que peut-être loolu ñoom dinañ matale lépp li ñu wax peut-être dépistage beeg euh, peut-être conditions yi nga xam ne ni distanciation bi ak gel yeeg ay masques yeeg yooyu bu fekkee loolu dina mat ñu mën koo matale pendant deux mois trois mois defe naa ni loolu aussi bon xëy na peut-être euh, c'est à saluer mais daal man daal je suis pessimiste par rapport à cette décision et balaa ma euh, affaire bi dina antu ma gis ko wa ñu dem le parce que ak le une quinzaine de jours xeyna ni ñuy xaar nu maladie pandémie bi di évoluer bala peut-être dinañ décision wala yu non bu des dañuy jang ñu xam conditions yi ñu vraiment sur le plan sanitaire condition optimale bu ni aussi

Manam d'abord installer personnel administratif indi enseignants d'abord enseignants les dispositions ñu xol ka désinfecter classe yi affaire yi en attendant une semaine ou deux semaines après ñu xol fan le cours bi tollu ñu mën indi élèves yi ñu dugg ci classe mais amon na lu jiitu loolu nak waxtaan comme waxtaan amagul ne nekkul seen xel.

li nga mesure pour chaque élève pour chaque enseignant tester élèves enseignants yi na nekk kenn discuter par rapport à fii feebar bi toll. kon daal li ñu jaaxal mooy wax fi toll nii jëf da ko am ëpp solo kon ngi xaar état bi na ñun nous nañ moralement ak mentalement donc pour delluwaat jàkkaarloog suñu ay waaye contexte bi tiital nañu tiital boo xam ni na jàpp ne conséquence bu ci man di am moom mooy seul responsable.